yéenekaay yi ak lanu xëyee dañu koy doore ak l'observateur l'observateur Fatou ni nga ko waxee noonu la daal di ñëwaat nag ci malade yi am Covid ni leen di évacuer loolu journal daan ci ñëwaat ci nam gën a yaatoo jox kàddu gi nag ñi dawal ambulance ñu leen def kon ambulancier ñu ci bëri kon ñoo xamante ni amuñ place jigéen ñi wan lor ñin testé positif ak ñeneen ñi nga xamante ni kon ambiance bi daal ci guddi gi nin sonné yenn saa yi dañuy am ñoo xam dañu toog ñetti fan. maanaam rek duñ ñibbi seen kër muy lu yéeme loo xam journal ñëwaat na ci ak tamit génn àdduna xalif euh, kii sax ab chauffeur la doon dawal ab kenn ci architecte yu président de la république moom nag ca Ndiassane moo subite moo ko fa dal bi fa président waroon a dem doon jaale ji xalif euh, bi ñu wax it ci li nga xamante mooy université yi classement Shanghai dafa mel Sénégal ay université am del noon ginnaaw ak musiba amoon ca Kaolack ñeenti nit ñàkk nañ seen bakkan ci benn accident Euh, journal bi ci topp kon mooy enquête moom ñëw rekk ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay maire yi génn àdduna ci jamonoy mbas bi mel ni kon lu yéeme la euh, bi mbas mi tàmbalee fii ci senegal ak léegi nag maire yi fi ñàkk seen bakkan bari nan journal bi daal dinañ ci def gëstu mu mel ni kon diggante Khalifa sàll ak Sonko mu ne ne union à mille inconnus la ko tuddee ak camion bi daal di rëj ba moo ko lii di euh, taxi bi fële ci Kaolack ñeent nit ñoo ci ñàkk seen bakkan ginnaaw loolu ñu wax ci euh, le quotidien moom ñëwaat ci diggante président Macky Sall ak fi nekkoon ministre am affaires étrangères wala wàllu koom-koom di Amadou Ba mu mel ni kon euh, ñoom ñaar daal. Ah, ma ngay neexaat diggante ba ndax ñoo àndoon dem jaala ji ca euh, Yoff ak ca Canaba accident yi tamit mel ni kon tax na rek diggante Kaolack ak Bamako fitna amoon ci ñaari dëkk yi taliban yi tamit teg nañ loxo fële nga xamante ni kon moom mooy. Afghanistan mu mel ni eh, nërmeelu Amérique nërmeelu nan ginnaaw ba nërmeeloo fële ca Vietnam ci année 1970 ak tamit euh, xaalis bu lewut bi ni mu yàqee comme gi gendarmerie ñoom ñoo def alerte bi. le soleil ah, mi ngi noonu moom it ñëw ba léegi rek ci ndono yi nga xamante ni kon ñaari xalif yi ci génn àdduna ay bés bee ñu génn def nañ ko loolu nag président Macky Sall daal ne rafetlu googee ndongo ak seen taxawaay muy lu am solo moom njiitu réew mi daal di koy wax le soleil changé nañ couleur bu ñëwee ci vacances noonu la ñuy def ak AstraZeneca Fatou jot nañ ci lu toll ci téeméeri junni ak ñeen fukk ak téeméer ak juróom-benn fukki dose yoo xamante ni démb la ñëw. Mm, wolof lan dañuy wax wolof. Euh, libération it gis nga ko noonu Akon City nëgë ni daaw moom la sampoon xeer wa xeer waa ngi nii ci suuf sax journal bi nee na kon cinq hectares dans le vent. ah photo baa nga nii de waaw photo baa nga nii image it noonu ñoom fo tamit ci la bokk moo la n'est-ce pas ñooy illustré une yi waaw donc ñu wax ci tamit ci tribune ah muy camion malien bi nga xamante kon écrasé na benn taxi ñeenti nit ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan daal di yeefit eh, na nag ci ay manifestation yu ci amoon ñii tamit nañ leen delloo ndukkal muy Rama ak Aminata ñoom ay seex lan gis nga am bac ci at fukk at ak ñett na nga xawee nag ci yëmbal moo tax gis nga des fois yenn quartier défavorisé nee neen di fàtte ak lycée yi ay jàmbaar lan faat du rek waa Mariama ba ñoo fi ñoom lañ war a wax gàcce ngaalaama ñaar itam na leen wax gàcce ngaalaama waa année bi ñu am bac dañu bëri ci lañu am CFEE ah, e. nekkuñ ci internat nekkuñ nekkuñ ci internat nekkuñ fenn donc ñii lañ war a fësal ñu wax ci Walf Quotidien tamit ak Seydou Gueye porte parole bu gouvernement gis nga ko opposition bi nee na nag dana rek préparer opinion bi ci seen défaite moom moo tax kon ñuy yuuxu ñaar ñi tamit danañ jàppante buñ ci waxut muy am Wardini ak Alioune Ndoye maire Dakar ak maire Dakar Plateau di xëccoo marché Sandaga ku ci nekk di nga yëkkati kàddu tey ginaaw wal fu ñu wax ci les échos ñëw ba léegi nag ci frayeur madame tiitaange gi amoon ci diggante ba euh, Bamako Dakar kamiyon bi ginnaaw kon bi mu rek euh, mokkale taxi bi ñeent nit ñàkk seen bakkan euh, taxoon rek ay jàppante am ci ak tamit Macky Sall mi nga xamante ni kon mi ngi ak rawatina xalif général bu bees bu ba mi ngi jox ay assurance njiitu réew mi ak tamit président ba mu fa jógee démb demoon na fële ci communauté Layène rafetlu fa liggéeyu Diouf Sarr loolu la njiitu réew mi wax ci les échos lii tamit musiba naarulaay la la source am moom moo ñu ko wax benn soxna bu ñàkk bakkanam moom ak bébéem ah, dafa wannoon lor dafa mel ni kon clinique nest tamit joxoon nañ leen ci baaraamu tuuma mbëkk mi tamit rawatina mbënd mi plutôt ñëwaat na ci ndakaaru ginnaaw covid beeg yu ni mel inondation yi gis nañ ko fu nekk ci ndakaaru Touba ak fépp ginnaaw su ah ñu jaaxal ak waaw Vox li moom it ñëw ba léegi rek ci faatu gu métti gi nga xamante ni kon ñeenti doomu aadama yi ñàkk nañ ko seen bakkan ca kaw la ak ni camion bi jaaree ci kaw taxi bi muy lu doy waar Kër Massar tamit inondation yi dellusiwaat na fa mbokk ya ña ngay xaw a amat jaaxal jaaxle daal di Ibrahima seen mi di wax ak Ousmane Sonko Sud Quotidien moom it ñëwaat rek ci li nga xamante ne mooy précipitation yi di taw yi Ndakaaru nag euh, li fi taw muy juróom-ñett fukk ak juróom-ñett yu toppas lëf ci wàllu milimètre loolu nag tax na kon euh, mbir yi waame na ba am na quartier yoo xamante ni kon mbir yi nangu na ko ak taxi bi nga xamante ni tamit camion bi riij na ko ba ñeenti doomu aadama ñàkk seen bakkan Ablaye Thiam it fa Ablaye euh, falaan nañu ko ñeenti at mooy ANPS Pape Fara seen kuréel gi yéen yëngut ci wàllu tàggat yaram record a ngi nii Ismaïla Sarr moom it euh, passe décisive ak tamit benn bit mu mel ni kon tam tàmbaliwaat na moom it di yëglu ñoom waa Watford ak Premier League fële ci Angleterre. ginnaaw record euh, gis nga ko Manchester United ñoom it ak Chelsea Liverpool démarré na ñoom it ku ci nekk gagné nga sa premier match mu mel ni kon mbir yi tàmbali na ci stade la xewee ak Sarr ak ñoom Mendy gis nga ko ñu ngi doon ñoom it ku ci nekk taxawaay bu solo boo xam ne taxaw nga ko. ñu jeexale ko sunu làmb ba léegi rek ñëwaat tamit ci taarix verdict bi nga xamante ne kon ñu ngi koy xaar boobu ba léegi Mbaye Guèye du balees 45 ans la boobu boobu la xewewoon ah, Faty euh, gis nga ko noonu kon moom Mbaye Guèye génn àdduna barki dem yàlla ko yàlla yërëm xale ko àjjana amiin yaa rabbi ni euh, euh, Mokhtar doon wax làmb def ci amoon daaw verdict ba la ñuy xaar ba tey yaakaar naa ni refrain boobu ñun ñëpp min nañ ko ndax Youssou Ndour ñu lay jaajëfal bu